mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bu ngeen ñu gisee ngeen xam ni làmb woote na waaye bu ngeen ñu gisee ngeen xam ni événement yegsi na bu ngeen ñu gisee ngeen xam ni lu ñëpp doon xaar ay weer ay at pendant deux ans et demi ñu koy xaar mooy événement bi yegsi na mooy diggante guy gi ak rëg-rëg kañ la le 20 lay am fan lay amee arène nationale kan moo ko organisé Sénégal Entertainment Group loolu booy na ci nopp sénégalais yi waaye dugguy gi ak rëg-rëg rek ñoo def événement bi événement bi mbokk yi dañoo seet la crème de la lutte sénégalaise les espoirs de la lutte sénégalaise ñu boole leen ci événement bi su ma nee la les espoirs de la lutte sénégalaise léegi léegi rek su ma leen limee di ngeen xam ni ku ko mën la ak ku koy jéem xëyum 404 bokkul ak ngontum avion lu tax je m'explique ndax da nga daan gis événement am promoteur organisé def fukki combat combat yi guddee lool critiqué wu ñu benn promoteur combat yi guddee lool sotteeku saafara yi guddee lool protocole bi guddee lool léegi Sénégal Entertainment Group ne dama fiy génnee loolu ñu ne ko noo fi génnee loolu mu ne damay def vite fait bien fait ndax bëgg naa 7 heures 19 heures kenn ku ci nekk dem jullee ji tibi sa kër te teewul terewul événement bi tey nekk événement boo xam ne ñëpp dañ koy waxtaane muy événement mondial loolu mooy un deuxièmement mënuñoo bañ a féliciter suñu gaynde yi les lions du Sénégal félicitations jox ngeen ñu lu ñu mësta am muy coupe d'Afrique euh, des nations yàlla nañu jikk ci barke alxuraan bu ngeen gisee baat yëpp dee nañu bu ngeen gisee paa yi maire yi jarbaat yi ñëpp génn ci mbedd mi ñëpp jubilé mooy la bande à maane dañ ñu may loo xam ne musuñu koo am yàlla ñu jik ci barke yonent bi sallallahu taala alayhi wa man musuma woon xam ni ndekete coupe nii la neexee kon ñi ko doon jël ñu commencé ko benn étoile lañ ko commencé woon ba juróom-ñaar ba juróom-ñett kon cafka bii la njiitu réew mi it desu si ginnaaw teral na gaynde yi waaye ñun ñii tamit nañ teral gaynde yi ni leen di teralee mooy ñu ñaanal leen ñu dellu seen club li ñu bëgg yëpp yàlla defal leen ko kon bravo à l'équipe nationale bu Sénégal waaye mbokk yi ma dellu soit ci événement bi mënoon nañ sax bañ a présenter mbër yi waaye wolof njaay dafa ne mbaam daa gàtt waaye ci jur gi la bokk ñu def cinq combats cinq combats yoo xam ne mën naa wax ni bu rëg-rëg ak guy gi xoolee tuuti xale yi daañu feesal stade bi ci mën a bëree ci jàmbaar ci am jom ci am fulla ci am fayda su ma nee Karaña xel yëpp dañuy dem ci Thiès benn dëkk ñaari gaar benn aéroport moom foofu la waree wara a dajeek nag booy xulle booy xulle ça veut tout dire ci làmb yàggul ci làmb waaye gis nañu progression boo xam ne am na ko ci ñu ne saamu kaani ñu ne euh, saamu kaani dégg ngeen turam ci làmb dégg ngeen li mu defagum ci làmb yàlla na yeggale ak sagoom muy daje ak solda ama nga kaani ak solda moom loolu moom damay bàyyi gars yi commentaireel ko seen bopp ñu ne foofu lañuy ñuy ñu ne déedéet dañoo dem ba Kër Mbay Faal jëli fa doomi Kër Mbay Faal boole ko ak risqué ndax risqué mooy moo am risque ci kanamu doomu kër mbay faal wala déet je donne ma langue au chat yemuñu ca ñu jël kan soq bu ndaw ak appliqué yi man yëpp sama combat la mais combat bi mataar am na lu ma ci bëgg te après dinaa la ko wax wax naa ko maawo léegi ndax boo ñu naxoon indil ñu ay xale yoo xam ne mënuñu bëri amuñu mbooloo ñun am nañu fulla am fayda boo xam ne dañuy wax maawo li baaxul mais mataar merci mu jël soq bu ndaw boole ko ak waaye combat bi nga xam ni mën naa waat ni guy gi ak rëg-rëg dàquñu ko man mën naa ko waat mën naa waat ni man suñ ma joxoon événement bi génnee guy gi ak rëg-rëg ko ci événement bi tëggee ko beneen jour man ku ma jox diggante jeu technique numéro de ak Albouri ma organisé grand combat gars yi ñëw xam nga lu tax xale yi mën nañoo bëree te neex nañ neex xam nga neex géotechnique numéro 2 nit gënu koo neex Albouri moom dafa xënee loolu dafa nekk loo xamante ni nii te noonu la ñuy bëree Matar événement baa ngi noonu l'écran lañ ci àndal ak Free Money Sénégal Entertainment Group moo ko tëgg tuddee ko GFM groupe Futur Média groupe Futur Média ne jënd naa droit yëpp ñëpp ku nekk ci àdduna da nga koy seetaan en direct kon abe affaire bi amul pay per amul no view amul lenn ku am antenne kese da ngay seetaan événement bi en direct yaakaar naa ni plateau bi riche na Matar. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu mbooloo mi ñi toog fii jël nuyoo bi di ko teg ci loxo loxo Ndiaye Thiam mi nga xam ni moo fii représenté CNG de lutte bi di nuyu El Hadj Lamine bu baax dina sargal présentation bi am na solo comme ni ko waxee rek noonu la demee. ñu xam làmb ñi nga xam dañuy dund làmb bu ñu xoolee xale yi xam nañ ni bis bu mag làmb ju nar a neex mi ngi nii te macha allah comme ni ko waxee Reug Reug ak Gouye lañ gën a miin mais comme yi làmb ko dàq et puis euh, li ñu ñoon ni ñuy jooy man dañ may waa sàkkal ay maire sax dañ lay woo naa leen léegi yàq ngeen làmb ji ndax làmb ji léegi ay PPV yu xamul kenn xamul nuñ koy seetaane xam mag ñi dañu bëgg dañu dund làmb ba àll ba. doguma la. Mhm. lamb bu musaan am. Mhm. premier li tax ñu xam yaaw jaan te mës ta bëre grand combat. Mhm. ah lu tax ñu xam Bodi RFM te mës ta bëre grand combat. lu tax ñu xam saret bu yàqu te mës ta bëre grand combat. parce que lamb dafa daan am nga dund ko en direct. comme ni nga xamee Nampalys Mendy xamee ko ay Sadio Mané noonu nga doon xamee mbëri. léegi boo yi dañuy bëre ba tey. ci réseaux sociaux yi nga koy xoolee. ndax heure bi ki nga xamante moom moom mbiram da koy doon dugal ci site boppam. sama maam ba dëkk Fonguelemi daa xam site. sama maam ba dëkk Pekes daa xam site. léegi boo ko nee fanga dàng ràññ ci télé bi nga xam ne moom la ñëpp di seetaan Matar loolu man ŋàññiwu ma kenn. ndax promoteur affaire privé la. ku mu neex organiser sa sa sa làmb ne man dama koy jaay. bu GFM jëndul woon droit yi. amaana Sénégal entertainment group da koy jaay. boobaa tam duñ ci mën dara parce que kenn du jëndee fokk di jaayee juróom mais événement bi dana delloowaat mbatt ca ndaa la Matar. man maa la ko wax. promoteur yëpp daañu ci roy parce que ñun sénégalais yi lañ fi nekkal ku tëgg làmb mayee ko en direct ci jënd droit yi loolu il faut gars yi tàccul ma euh, GFM Matar eggale voilà ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax ndax vraiment réclamation yi bari na waaye nag comme ni ko waxee promoteur yi comme ni nga ko waxee ne kenn ku nekkee waa xam ni nga tojee sa bopp ci nax mais lii daal initiative bi moom rafetlu nañ ko ñu ngi ñaan ñeneen ñeet ñu roy leen ci ñu ngi ñaan quand même ñu gën a dugg gën a jàppale làmb su ko defee xëy na dina gën a yomb pour askan wépp di ko seetaan dax làmb Sénégal yi dañ koy dund dañ koy dund bu baax xale yi tamit ñu gën leen a ñaax rek ñu gën góor góorgóorlu ginnaaw xam nañ leen xam nañ seen ginnaaw xam nañ seen mbooloo mais ñu def ko comme ni ko neen ñi daan defee rek toujours ni ngeen ko doon defee bu ngeen ñëwee jaayante grand combat ba ku ne wane ni man grand combat bi du ma gën a mobiliser parce que xam naa xale yi te wóolu nañ seen ginnaaw ku ñëw arène nationale ci le 20 février bii sa xol dina sedd guy. caam man personnellement suma mag la personnellement suma xarit la su ma gisulee ci télé bi sax vraiment dafay am lu ko lu ko xaw a jaaxal ana lamin Samba ana lamin Samba euh, di la ñaanal yàlla may la wér ak gudd fan. ndax yàgg nañu ak yow te ñu ngi ñaan yàlla gën a yàgg ak yow. tey bu ñu toogee tey ba ñu ne événement bi une semaine moo ci tes ndax Futurs Médias li ko waroon yëpp. Sénégal Entertainment Group li ko waroon ci digganteem ak CNG bi yëpp def na ko. macha allah. Lamine ñu ngi lay nuyu ñu ngi nuyu assistance bi ñu fi teew ñëpp. Euh, effectivement comme ni nga ko waxee rek. Euh, euh, SEG def na li mu war a def lépp. Sénégal Entertainment Group. voilà moom mooy SEG. waaw. alors euh, effectivement def na li mu war a def lépp moo tax sax d'ailleurs suñu teewaay fii. ak euh, yeneen yi fi jaaroon yëpp parce que banañ ko ba fi mu toll ni programme bi yëpp taxaw na officiellement jaa mm-hmm. fi donc mu nekk six combats mm-hmm. cinq combats préliminaires ak grand combat bi mm-hmm. man man man tuddewuma ko sax combat préliminaire dama ko tuddee euh, grand combat ci biir grand combat parce que li tax loolu ay xale yoo xam ne ñun dañ leen a topp parce que ci làmba ji lañ nekk aussi tamit quoi te gars yi bu ñu leen gis nii ak booy nii mbooloo moo topp seen ginnaaw su ma ko dalee ci karaañaam yi Habib kan mi topp ci ginnaawam Thiès nee na ma Lamine ma ne ko naam mu ne ma boo moytu rëg-rëg ak guy gi bara biye di jeex maa leen ko jënd ba ci booy xule mii xam naa bu baax a baax a baax a baax fa mu bàyyee ko li tax ñu tuddee ko booy xule ndax événement boo xamante ni la Sénégal kenn dootu ko fàttee ci incha allahu rabbi aadaak cosaan dina fa génn te maa leen ko yëgal nag tey maa leen ko wax groupe Futurs Médias daf ci bëgg wane boppam Sénégal yëpp xam nañ ni mooy seetu Sénégal waaye l'observateur mi ngi si biir IGFM mi ngi si biir record mi ngi ci biir télévision bi mi ngi ci biir rajo bi mi ngi ci biir jàpp leen ni dinañu wan sénégalais yi ne fii lay tàngee te fii lay xoyom xoyomee loolu leer na nañ grand lan lañ ci nangu ak lan lañ ci bañ. Ah, loolu lépp de ci bénéfice làmb lay doon rek. ñun euh, képp lu lépp luy taaral làmb ak lu koy jëme kanam rek dañ ci adhéré CNG def ci adhéré bu baax rawatina ki ko jiite muy président Bira ñuy profité nag ci occasion bii nga xam ne moom la làmb njëkk a am euh, ginnaaw saakaru Lions yi nga xamante ne bi ndam lu rëy li ñu def ak jaloore bi ñu def ci Afrique maa ngi wax ci turu président Bira ak euh, bureau bi nga xamante ne bi moom la jiite yëpp ñu ngi félicitation wu euh, groupe bi jëmale ko ci suñu lion yi nga xamante ni def nañu teraanga ji ñu indil ndax effectivement ni nga ko waxee rek ci ubbil bi vraiment dafa doon teraanga joo xamante ne bi yàgg nañ ko wut depuis soixante ba léegi ñu ngi koy wut amuñu ko asmara ba léegi ñu ngi wut loolu amuñu ko te ren ren ji nag la ko sunu borom dogal ñu sante ko yàlla bu baax. vraiment nag gërëm ci suñu njaboot gii nga xamante ni bii wone nañu lii suñu emblème mu réew muy gaynde wone nañu ko bu baax a baax a baax a baax parce que dañuy wax ne euh, dafa am loo xamante ne bii jom ak fulla ak fayda rek moo koy moo koy yeggale. mooy lii feeñ toujours ci xale yi di bëri. bu ñu waxee ne dafa mbër bi dafa ragal mooy leen déedéet mbër mu ragal amul. mbër mu nekkul ci bis moo am xaj mm. mais mbër bu fekkee da ngaa futtiku euh, jàpp ne kii nga xam moom ngay dajal kurpeñ bi muy yëkkati ci sa kanam gi la ko jëme te ba sañoon dootoo dootoo bërewaat kon jàpp naa ne loolu nit ku ñemewut du ko def kon euh, sénégalais yàlla dafa dogal ci ñoom doon ay jàmbaar loolu nag la xale yi wane moo tax vraiment maa ngi ñaan vraiment ñun li nga xam ne moom la ñu moom te muy sport nag dafa associé culture waaye nag sport lan sport bee ci jiitu kon xale yi na ngeen tàcc seen morom lion yi bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf grand Thiam jërëjëf jërëjëf Fatar dafa am loo ci yokk. waaw non li ma ci doon yokk rek. Euh, dama dégg nga ni bi ngay wax ni Karaña ba wax Thiès. Hmm. boo xoolee dama ko wax pour mu ñëw renouveler licence am. mu ne maa ngi ni Thiès man nga yow booy xaar ngay xaru yow nan ngay bëreeg waa Thiès. di dem Thiès mu ne ma man Thiès laa dëkk comme moom booy bi xam naa ko bu baax mu sant la dëkk. bi ma ko waxee Maawa mu ne ma loolu derbi Thiès waa la euh, ñu jëlee na xale yi nga xam ne diggante Pikine. Ah. Kër Mbay faal micro bi waaw Grand Médine. Ah. Euh, Tivaouane Peul. Mhm. Euh, benn ñoo ñooñu lañ sélectionné nga xam ne mbëri kenn bokk ci sa ak sa morom écurie donc da xam ni six écuries yoo xam ni douze écuries yoo xam ni bokkuñu ñoo daje loolu am na solo. de toute façon daal xam nañ ni le 20 ku ñëw arène nationale incha allah di nga gis combat yu neex a neex. ñu jël premier combat bi diggante Kara Niang ak Boy Khoule jóg leen taxaw Kara Niang Boy Khoule ana Boy Khoule mais booy yow laay waxal ana Boy Khoule. maa ngi nii. ana Kara Niang. maa ngi mais Kara yow ak Boy Khoule yéenay ubbi événement bi le 20 dañ naan coup de ba dal na premier combat de la soirée diggante Kara Niang ak Boy Khoule. karaañaa mbëru mbëru abit kan sonn lool ci booy bi na am combat waaye booy xulle dafa am lu ma ci xam dama xam ñi ko ngemb dama xam famille xulle bi ko ngemb ma xam ni du ñu maye dara kara derbi Thiès <laughs> loolu mooy bu leen neexee ngeen ne guddi guddi cees kara xale baa ngi lu tax nga jël ko waaw balaa ma wax dara ginnaaw ma sant yàlla jul ci yonent bi tedd bi sant sama ñaari waajur di sant Cheikh Modou Kara Mbacké nooree ni sama sëriñ xoolal booy bi boo ko ragalee di sant sama papa bu baax a baax di sant sama yaay di mag ji toog muy Cheikh Makumba di bëggee ñëpp di ziar gaa yi fi toog yëpp champion yi fi toog yëpp ah. waaw lu tax jël ko lu tax ma jël ko mooy làmb moo nu boole rek maa moom kii mënoon naa bëre ba bàyyi bëre du ma dajeeg moom. lu tax kon tey làmb moo boole moo tax ñu war bëre. naka la leen làmb boole. da ngeen xamante woon wala da ngeen am ñu ngeen mus a dajeel wala naxa. non kii mosuma koo xam sax. yaa ngi koy soo gis. maa ngi koy soo gis ñi ma daan ba si ba fii man pour man sax bëriwuma kii. banque naa sama baaraam koo daan. dina koy xam nga ko. sama doom. barke Serigne Saliou Mbacke deux minutes laa ko daan. ak kan. barke Serigne jël bu gaaw wala victoire yi fa la yem. Médoune waaw dama ko dóor mu daal. bii du sama premier combat de. ah waaw. booy booy booy xule dellool avance bi. muy ah, ma booy dellool avance bi. ginnaaw bi ñu sant ah. julli ci bi. waaw waaw ñaari waajur bu baax. xam nga ne xam nga ne kala ñaam yi booy ñaama ko indi. kii na xaar ma ñëw rek. na xaar ma ñëw bu baax a baax waaw teel micro bi ma ñëw kii ñu ko indi ñëpp man lijjantiwuma ñooñu man sama bopp laa gëm ak ñi may toog non da koy xool moom ne ko ñi la ñi la indi lijjantiwuma leen te nga téye micro bi ko boo ko xoolee sax xam ne loolu boo ko xoolee ne ngi doogu bëri ma maa ngi dooru bëri sama premier combat bii la déggoo ma de te incha allah ci kattanu yàlla bu jour ba boo bëree ma daan la boo xeexee ma dóor la nga wàcc eh. yow yow nag maa mën a yëngal billaahi man tegoon naa ne keneen lay bëree bi ma la xoolee léegi dama xool sama mag yi damaa ree moo yow da ngay xaar loolu yàlla damaa rey. loolu moo lay rey. taxaw ma sax jug say defet limoo ko kees de. taxaw ma jug de. say defet ko. kan daan na barke Serigne Bamba Mbacke maa daan. am na ko daa foo ba soxor kele moo ma daan. kon jeex na. waaw kon kay yow bul wax. karaaki xam na xam na la de. <laughs> xam na ma naa bu baax bi muy bëre lu ndaw laa kan parce que ma mag moom mii. ma kii ma kii ma ma mag eh, fuuf. Eh, yow da nga eh, wax ni màggatu ko kororoj la. kii moo ma mag kii mooy sama mag man. barke xool leen dama xam mag la ko wane kooku bi ñu ko wane. bi muy bëre man bëreew ma xale bu ndaw dina nga ko ban dina nga ko dinaa la ko jaay ci biir làmb ci léegi. magaay boobu noonu dinaa la wane maa la mag ëppale expérience téeméeri junni boo def dara yaa wax lii góoma de bar bi sifle da nga dëggal sa bopp dara yow da ngay xaar soo dëggalee sa bopp dama lay doon boo daan mais da nga doon ma daan dama doon ba nga ni këpp boo xeexee ma duma ba nga daw ku la da ngay yooru waaye kan yow sa combat yëpp laa seetaan na teg na sanu sanu kii reliquat maa yow jox leen ma jox leen ma na teg sanu reliquat waaw na teg bi loolu kay marché ay dama daan waaw dama daan reliquat ngay kii barke Serigne Bamba Mbacké da ngay xeex nag waaw mooy booy déglu li nga wax xeexee ma eh, duma la eh. bëree ma daal waaye eh, eh, eh, respecté leen ma eh respecté ma eh respecté leen jarul reliquat li nekk seen poste jox leen ma ma téye en attendant voilà nekk seen poste génn nekk sa poste ma téye en attendant ok génnal déet koy téye dama koy téye ba booy génnal nekk ci yow bi doole ko ci bagage yi may ko ci bagage yaakaar ne maa yow sax yow yow maa ngi yaakaar ne sax da ngaa ñëw boo bëri sugul dinaa la dóor ba da ngay xaar sa morom man ma tëdd loolu li ma liggéey daa xaj ci yow billaay bi ma ñëwee nii. yow xaar da ngaa retard. yow da ngaa retard man dama lay dimbali rek yow da ngaa retard ci lamb. daan ba nga man def da koo def ci lamb. combat mi acca léegi kenn ku nekk na gërëm rapidement une minute bala ma couper micro yi acca gërëmal. père avant tout damay ñaanal sama benn maire bu sosoon ci man. ndeysaan muy xaditaal waaw ginnaaw yàlla lii nii bu sottee sax. Ah. moom ci la bokk. ak sama beneen rakk bu naan fàllu. Hmm. waa dama leen di ñaanal yàlla rek ak mboolem jullit mun fa fekk. yàlla yërëm leen te xaari leen. mais rapidement rapidement. kees nag moom la ma fay génne sax jour boobu moom du ko fa génne. ci ci mbooloo. billaahi wallaahi. mat na fal ron. mi kii muusante la dëkk kii du génne dara. barke alxuraan grand combat bi sax du ma supporter. atia jërëjëf. yow Kara nag damay woote père. waaw rapidement booy damay woo waa kees. waaw di woo waa Tiwaawan. jàkkaarloo nga woote di woo waa Mbaraglo. di woo waa Kër Matar xaali di woo waa Caare Géej di woo waa Poste Caare di woo waa Diamaguène di woo ñëpp ne leen seen doom moo xewle te bu jour baa na ñëw ñëpp jàpp ci nga ñëw ma dóor la nga wàcc. ok Kara rapidement. waaw Père man su may sant na damay sant Abibou Kane. ndeysaan ndax boo dee xool wax dëgg bi ma dalee bëre ba léegi. ak sonn sama billet yëpp sama billet yëpp moo ko jënd. sama billet yëpp moo koy jënd. Père Thiat Samba Diaw moom laa mujj moom laa mujjee bëreel nag. Mm. pour nga xam ko yow yaa yaa yaa ngi woon yaa ngi voilà caat Samba Diaw xam nga ni ñooñu xajuñu sax si kii li ma leex du caaxaan. mais booy diggante du weer kaamil de. doomi Boy Niang laa. ak Boy Niang ñoo bokkul la woon. Boy Niang numéro nekkul combat Dakar. xam nga ma d'accord ci. dama d'accord ci ne dañu ne bu doomi mbër bëre yàgg yàgg des na la ma sa ñam. waaye bis bu yàlla sakk man ngembali wëriwu ma ko de. daan ngembali judd fekk ci kër gi su ma bëriwul rek dañ maa war a génne kër gi. ok rapidement yaa ngi dégg bu baax a baax. day jàpp sama combat day sonn si man lu ne la may defal combat bi paas yi bi ñu paas nii sax dane ma damaa woo téléphone ni ma ñëwal paas nga dem oto yaa ngi oto baa ngi nee ma gaaree. Mhm. yaa dégg di sant sama mag yi muy Cheikh Makumba. Mhm. buuse la. Mhm. di sant Cheikh Moudou Karam bu baax waa. mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg boo xoolee sama seen. teggil teggil micro bi seen. paa bi sax moo ne ma seen bi dugal ko moo si Mour Kara la doon gën sunu kër ñun si Mour Kara la doon gën. téyel micro bi si digg bi xoolal booy téyel micro bi. ci digg bi teg bu baax a baax teg sa gémmiñ waaw. waaw léegi nag père damay woo waa Thiès jëpp di woo képp ku may jàppale rek Thiès maa ngi lay woo di di woo Pape Père Lamine Samb naa ko wax mu jàpp ci combat bi père daaw góor na ñëw jàpp ci combat bi ndax stade bi kon kon li père wax rek danoo war a duy stade bi ba mu fees dell ak mbooloo ñu xam ne grand combat di nee na nee nga nag yaa ma ëpp mbooloo damaa bëgg xam nga li ma bëgg yéen ñëpp seede yi li ma bëgg mooy seede yi ñëpp nañ ñëw caméra maa ngi moom côté nee na man na fa rooba lay jëli waa léegi man sama ko li fay jóge kaar nan nu filmer nga xool bu ñu filmer maa la ëpp mbooloo ada nga tuur jërëjëf jërëjëf joxal ma micro bi joxal ma micro bi diggante Kara Niang Boy Khoule ba nga daw barke Alxuraan mbëri signature mbëri signature mbëri signature voilà léegi mbokk yi kon gis ngeen ni Matar cin bu naree neex bu baxee xeeñ neex léegi diggante saami kaani ak soldat damay xam ndax kara saamu kaani ah day jël soldat rek yóbbu këram walla soldat day jël saamu kaani yóbbu ko soldat yi di ko dëbbëg di def nokka sax ñoom seen ana Saamu Kaani micro bi ana Saamu Kaani maa ngi nii lu tax tuddee sa bopp Saamu Kaani waaw mais booy am na lu gën a saf kaani saf sap rek dégg naa mbata dégg naa wala fi naan daqaara saf ak netetu kaani saful dara xanaa déggu way wow Saamu Kaani lan non nan toog ba am inspiration tuddee sa bopp Saamu Kaani. non dama sam benn paa bu doon bëre. waaw bi dëkk Gorom. waaw Saamu Kaani lañ koy man maay Saamu Kaani numéro 2. ah yow yaay Saamu Kaani numéro 2. soldat. waaw. ma sant yàlla di gërëm maman Marie ak yéesu Christa. di gërëm samay ñaari waajur. alléluia nuyu ñëpp ñu fi teew nag. du loolu la ñuy wax boo waxee dañuy wax alléluia. di nuyu sama doomu nday jaxasoo. Ah. waaw di nuyu tamit sama adversaire. Ah. lan moo tax nga tuddee sa bopp soldat da nga def. armée non def ma armée man sama famille ñëpp ay soldat lañ moo dama tuddee sama bopp soldat. yow rek yaa nekkul soldat man rek maa nekkul soldat. mais booy nekkul bu ma duggee si làmb ji soldat yëpp man la ñu supporté. waaw force la. booy bi xam nga ko. xaw ma ko sax. bëggoo ko xam. bëgguma ko xam. lijjantiwoo lijjantiwuma ko sax. mais am ngeen combat. waaw nice combat la lan moo leen boole kon xaalis. non xaalis boolewuñu. lan moo boole kii xaw ma ko sax. xam nga Mataar ko jox rek. mais waaw téye micro bi. xaw ma ko Mataar moom moo ko jox rek mais si yoon mais kii waruma bëre ak moom. lu tax. si yoon kii waruma bëre ak moom non non. yàlla xam na ni xaw ma ñaata combat nga am. maa ngi am 4 combats. ñaata victoire benn défaite laa am. koo bëreel. maa bëri naa nu mu tudd. yëkkatil micro bi. maa bëri armée 2. waaw armée 2 maa ko daan. waaw bébé Thier maa ko daan. waaw caat limo maa ko daan. waaw benn laa rakk kii bi nu mu tudd sa fëgala bi Modou fëgala. moo la daan waaw Modou fëgala ma daan. Eh, Saamu. waaw ñaata combat nga man damay jàpp ne tey mooy sama premier combat. musuma ñaata combat nga am. trois combat la am. ñaata victoire. am na deux victoire. waaw yëkkatil sa micro bi yëkkatil sa micro bi nga wax. am na deux défaites ak benn victoire. abu njaase maa ko daan jël bu rëy. abu njaase maa ko daan foto yaa. waaw mais booy. kaay ma wax la booy boo amee ñetti combat. Euh, solda euh, Saamu. Ah. boo amee ñetti combat téel sa micro bu baax. boo amee ñetti komba ah. daanu ci ñaari. Ah. daan ci benn bi. kii am ñeent. daanu ci euh, benn bi. daan ñetti. kon defe naa moo la ëpp victoire. kii du dara. micro bi kii ni day taxaw fufandiku rek mel ni nagu dey. xaaral ma woon ni ni ngay waxee ci micro bi. li ngay wax dara dégg ko xam nga micro boo ko téyee nii mën nga wax li ngay wax yëpp te kenn du la sonal téyel ma micro bi nii nga wax sénégalais yi dégg la xam aca Abou Ndiassé maa ko daan ko yaa ngi may dégg bu bi ñorul bëri bi di fufandiku non jarul téye kii daa nekk fii di fufandiku mel ni nagu dëj Lamine Samba dinaa leen wax lu tuuti te bariwul golo bu reppee du yéeg day gas kii dafa repp kii

tëddal boppam. billaahi bu xeexee ma dóor ko ba mu tëdd. sama saak am na ngemb bu bëggee ñu génn ñu contact. fii léegi dañ leen fay nañ ko biir rek leen fay. booy doo gërëm de gërëmal fii de. wax nii leer laa lay lu ma toj ci mbapat toju ko lu ma def si làmb defu ko. lu leer laa lay wax nii. kii billaahi ba ci la ba nga ah, tëddal sa bopp. ba jour ba li ngay wax bu jour ba na nga dëggal sa bopp rek. booy dëggalal sa bopp rek ñu jixaat da ngay dugg si net bi nga seetaan samay làmb nga xool xool. maa yow soxlawu leer laa lay wax bu arbitre bi ne boo taxawee ma ñëw boo dawee ma dàkki la boo taxawee ma ñëw boo dawee ma dàkki la. dañuy daje loolu dañuy daje. waaw yéen ñaar bu ngeen dajee. yéen ñaar bu ngeen dajee bu ngeen rukum. bu ñu dajee laa la wax fu ma ko laal mu waat daje woon fii bu ma ko nee mu tourné. billaahi bu ñu dajee woon soldat kii day gént di wax. waaye man la dëkk fu sori ñeme. ma dompat ko xool ndax day day day dégg. man may doowu Pikine kii kii déggoo ma de Lamine Samba la ci am doo dégg dëkk fu sori ñeme lu métti watundel teg ci xal di laaj ci yoonu àllaaxira man la billaahi ñeme lu métti watundel teg ci xal di laaj ci yoonu àllaaxira man la déggoo ma de yii rek la am ci lamb yii am wax mais man man maanaam man lu ma wax ko man jëf laa mu ne kii laa la a bu du def dara da ngay dugg bi nga laajte su su xeexee day ñàkk. booy leer laa lay wax bu ñu simmee sax bu ma ko téye mu ñàkk. leer laa lay wax ni fu ma ko koy tuuma ba mu tëdd. fu ma ko téye laa la eh, Saamu Kaani ak soldat wuy ma Saamu taxawal fii nga woote une minute rapidement waaw dama bëgg a téye micro bi Saamu nag yow damay woowaat Saamu dugg si ma ne lu leer laa lay wax damay woowaat Tëngéej waaw sama koñ la waaw buun waaw sama koñ la booy tëbal tëngéej nee na koñam la. sama koñ la sama alaya la. Cap de Biche laa dëkk cité Sonacos. foofu yëpp sama alaya la yëpp. cité Sénélec cité Sonacos jiwoo Gara jiwoo sunu waa kër ñoom Gaspar. grand combat bi laa lay wax duñ ma ji. lu ñëpp jiwoo ma may xaalis bu sama waa koñ ku si mel doo. Peter ñëpp samay mag ñoom liis ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ñu ñëw jàpp ci lamb ji waaw di woo suñu entraîneur Mbaye Jos di woo Père Bada bu baax di wax na ñëw seen doom seen rak moo am bis ak benn booy bu bari wax te dama ko fas yéene duma daan ko. acca kii lii rek la am ci combat bi xam la wax wax rek la am ci combat bi man maa ngi woo su député Souleymane Ndoye micro bi may dama bu bëri ci combat bi. honorable député di woo waa Tëngéej sama waa koñ. xam nga di waa Pikine ñoom ñëpp maa leen woo Youssou maa leen woo bu baax dawalkat sareet yi waa Curuba maa leen woo bu baax a baax a baax ngeen def mobilisation sama grand Aline Ndiot léegi bu mu jógee feene nu mu tudd sax Belgique yàggul xaalis bu bari la ma may gis nga combat bi maanaam dama see am jàppale lu leer laa lay wax nii kii nii du maam moom sax làmb boolewuñu sax wóor na yàlla. làmb boolewuñu ban dëkk nga demagum dëkk man sama dëkk Casamance la di woo waa Casamance. sama dëkk bu baax a baax ñaata nga defagum ci xon. comme am nga ay moyens non non yow kii mooy loolu. déggoo ma de kii li liggéey. waaw lu leer laa lay wax bu ma futteekoo maa moom ñu futteeku ñu xam ku liggéey ok fu ma ko dal laa mujj bul waxaat. leer laa lay wax nii bul waxaat joxal micro ok ok booy. yow itam bul waxaat joxal joxal ma kii léegi Matar damay woo benn nit ku baax di jàppale guy ji ñu koy wax Silla waaye monsieur le maire de Yoff nekk rak ci ministre Abdoulaye Diouf Sarr nekk nit ku baax Grand Thiam nekk nit ku baax. di jàppale guy gi ci combat bi ma bëgg mu ñëw jàppale xale yi te su ma ko waxee dina ko def mu ñëw jàppale xale yi ci billet jàppale leen ci kaar monsieur le maire de Yoff monsieur le maire Silla maa ngi lay ñaan gis nañ li ngay def ci écurie Yoff gis nañ li ngay jàppale président Macky Sall gis nañ li ngay jàppale Abdoulaye Diouf Sarr le ministre de la santé ma bëgg nga ñëw jàppale xale yi ci combat bi te xam naa ne su ma la ko ñaanee di nga ko def Ilim Mbaye Dogo it maa ngi lay woo tàllal la loxo nga jàppale booy yi ci combat bi parce que ñun dafa am loo xamante ni moom la ñu am ci événement bi mooy bëgg wane ni dëgg la médium la ñu muy groupe Futur Sénégal Entertainment groupe moo organisé nekk médium boo xam nekk loo structure boo xam ne ci biir Futur Média la dañoo bëgg ñu def stade bi noo xam ne nit ñi su ko faa def ci fees ci teel a duggi marché ci teel a taal. tey a ñibbi tibis ñëpp ñibbi loolu la ñu bëgg loolu mooy loo xamante ni dañ ko bëgg a wane parce que CNG dafa ne léegi ci biir géew bi mbër mi ñetti butéel la am pour dugal muy loo xamante ni mbër yëpp a ko rafet lu léegi nag dañoo bëgg wan gars yi ne comme ci ñun la commencé ci commencé ci rëg-rëg ak guy gi kaay leen ñu wan leen ni ñun 6 heures demi dinañ sëgg grand combat bi 7 heures ñëpp ñibbi loolu nag ñëpp après roy ci ñun loolu lañ bëgg bu fekkee ni da nga nekk di joxe leçon yow waroon na donneur de leçon da nga war a joxe bon exemple kilifa yi loolu lañ ñu wax bugguñu sept heures fekk kenn ci stade bi ñëpp ñibbi dem toog seen kër agression du am gars yi nañ seetaan làmb gars yi nañ seetaan culture gars yi nañ seetaan aada gars yi nañ cosaan waaye sept heures ñëpp ñibbi combat bi combat bu neex la doomu kër mbay Fall ak risqué non combat bu neex la grand xamul tax wax la combat bu neex la risqué wallaay li ma lay wax nii du caaxaan tegul bëtam ci doomi Kër Mbay Fall doomi Kër Mbay Fall tam tegul bëtam ci risqué am na parce que tey li ñu wax ne borom bitiku mbagg boo gis rek boo xaree xol bi magasin bu rëy nga cay fekk ana risqué kaay risqué taxaw fii doomi Kër Mbay Fall yéen a ngi noonu sénégalais yi ngi noonu man combat yëpp sama combat la waaye comme combat bii du ma reporté damay jël micro bi jox ko Pa Thier ak Malick Thiandoum ak Malal ñu reporté ah, ñu reporté man ma toog seetaan risqué Sénégalais yëpp a ngi lay seetaan lu tax nga risqué jël doomi Kër Mbaye Fall. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi di nuyu sénégalais yëpp di nuyu sama mbokk yi nekk Casamance yëpp surtout mm-hmm. ak mbër yi fi nekk. Mm-hmm. ak sama grand bu ma àndal. Mm-hmm. Ndakaaru. waaw ak ménagère bi. di nuyu ñëpp daal. Hmm. ak sama adversaire waaw. Hmm. sa adversaire nu mu tudd. doomu Kër mbay Fall. xam nga turam dëgg dëgg dëgg. non xaw ma turam dëgg dëgg. man de boo ma joxee junni ma jox la turam dëgg dëgg. laal ma cinq mille léegi ma jox la turam. garaawul loolu garaawul. di ko am. non soo loomu turam sax loolu amul problème. yow doomu Kër Mbaye Fall bi rek doy na la. waaw doomu naka sant yàlla ma bàyyi la nga nuyoog sénégalais bismillah onze billah ina wali yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. Hmm. ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi di sant sama ñaari waaju hmm. waaw di nuyu sama père. xam nga yëkkatil sa baat bi boo ragalee nga teg micro bi te dem ñu daal ci beneen signature bi. nuyu sama adversaire tamit. mais doomu da ñëw tey ak ñàngal lan la man xamee wu ma la woon nii. naturel laa mel. de non booy eh doomu booy booy xoola booy meloo nii da napp booy bi wala da jaay safara wala lan. loolu noonu booy adversaire la rek. wala da koy wan ceene bi. doomu da nga liggéey ci combat bi lan la. liggéey laa xam amul leneen lan lay def entraînement rek. Matar baal ma nag ma lay wax grand Thiam baal ma gars yi baal leen ma du ma toj yax bi mais dama ne ñoom ñaar bi ñu summeekoo di photo am na ku tiit mais xaw ma kan la xam nga photo wu nañ. biñ sumee ko non c'est vrai biñ sumee di tiit bi suñ biñ sumee ko am na ku tiit xaw ma kan la to bugguma ñu toj yax bi kan moo tiit kan moo tiit bu moromam sumee loolu de xanaa ma laaj ko doomu Kër mbay Fall. xaw ma yow tiitoo woon. non sa loolu sax. doomu Mbaye Fall. amuñu teedu àdduna waxuma la ak la. yéen ñaar bi ngeen summeekoo di photo am na ku tiit ku tiit. loolu xanaa yow nga wax ñu kàlla rek. koo ah. gis. maa mujjee sumee ko. kon ki njëkk su koo tiit <laughs> da nga tiitoon. loolu wax la rek bu dee moom daa gis ni man maa tiit. waaw. c'est parce que xamuma rek moo tax mu wax léegi dama bëgg nga xamal ko yaay kan. non moom may risqué rek. may risqué rek ma. ti ti ti ti ti ñaata komba nga. waaw bëre a tas. waay jë waay yëkkatil micro ñaata combat nga. waaw ñaata komba yaa ëpp ëmba seen combat. yëkkatil sa micro bi ëpp combat. kan nga ëpp combat nañ baamu sedd leen sëñ Fallou. ah booy kon yéen ñaar bëreegu leen parce que ñaari mbër yoo xam ne man xaw ma leen. noo man lu mu la wax dafa leer bëreegu ma su ma bëreewu ma ne laa diw laa bëreel. waaw na la wax kal la bëreel bu dee bëree na bu dee bëreewu tamit na jëkkal wax bi rek mu ne bëreewu ma. bu ngeen bëggee dégg dëgg yéen ñaar ñemewoon tewu leen. noo demeewul noonu. man du ma jël avance ba pare nan la demee du ma jël avance ba pare ma ragal. nan la la wax dafa leer li nga ma laaj laa la tontu. waaw bëreegu ma bëreegu ma am pour la boo ma laajee. ci àll bi nga bëree. waaw damay baranti noonu rek ci wala yow da nga dégg riirum xaalis bi ci làmb ji rek ñëw. non demeewul noonu xam nga rek. <laughs> wala da sa bopp. non nëbb ma sa nag nëbb ma sa bopp wax dëgg yàlla nu may waxee noonu rek laa mel waaw. doomu. waaw moom mu teg rek na liggéey rek. di yaa nee nga ne yaay risqué da nga risqué sa vie yow loolu aw benn problème may risqué loolu moom ñi ma xam xam nañ ma bu baax a baax yow doomu Kër Mbaye Fall nee nga bëriwuloo tur bee ma gën a neex risqué risqué bu mu tudd lu tax lu tax mu neex la dafay fekk doomu Kër Mbaye Fall mbaru gox waaw mbaru réew noonu la demee nag boo jógee Kër Mbaye yëpp jóg ñu nekk ñu nekk sama ginnaaw bu bëri ginnaaw combat bi sax dañuy xaar grand combat ba gannaaw combat bu mag bi guy gi rëy day xaar. lu tax ñuy xaar. bu ma ñëwee ba taxaw ba dongale suba teel yëngu. ba nga ne nii jóg leen. kii dina gis leneen. ñun ñun loolu jaaxal ñu wax dëgg yàlla. waaw risque man ma wax la benn affaire xaar ma ma coupé micro yi. doon dimbale nga delloo avance bi. ko ñaan waaw waaw wax ci micro bi non dañuy wax. ma ne xalaatuma delloo avance xalaatuma delloo avance. waaw laa ko ngay wax bu baax. non li nga wax moom a jaaxal rek c'est vrai que danga ma xam mais ku nekk ak yaramam. ku nekk ak yaram moom moo liggéey ba nga gis ko nga. fa doo delloo avance bi delloo avance su ma naroon delloo avance kay ma bàyyi lamb moo gën. booy kii du delloo avance bi de. boobu kenn mbër la mbër la mbër la may mbër. mais kii bu arbitre soufflé ñeme nga dox ci kawam xeex ak moom gisantewuñu ba fii nii. yéen a ngi soog doo gisante. waaw doomu kër Mbaye Fall nii moom mu tudd risqué. waaw kon lu taxaw si kanamam moo la amul lenn mu war a tiit. mais dafa dajal koo xam ne du amul tiitukaay si kaw suuf waxuma la ak ay làmba gi. man su ma nekkoon ragal. duñ ma tuddee risque. da nga ko koy wax. su ma nekkoon ragal grand loolu dama la ko wax nee naa la sa tur dafa ma neex. waaw d'accord loolu yëpp loolu yëpp day am ñu bari dañ ma koy wax sa tur dafa ma neex waaw. loolu gàtt ma ko wax xamoon naa ni loolu nga may wax comprendre nga. grand Thiam damaa rus risqué ko est-ce que risqué yow jëloo risque. yaa ko naan grand de dama yëg jël risque waaw da nga koy wax grand. non loolu respect la rek mais waxuma. waay booy adversaire amul respect de. adversaire adversaire respect amu fi de. waaw respect amul fii si sa gis-gis mais man damaa gis ni dan naa ko jox respect rek moo tax moo ma ba lamb ja bu ci maanaam bu arbitre sifflé sax da nga koy jox respect wër na yàlla kii daf ma neex daf la billaahi wallaahi lu tax mbëri yow moo loolu <laughs> billaahi champion nga barke yàlla da lay nax dafa neex barke yàlla kaay ma déy la du loole bul delloo dara xoola wuy ma xoola wuy ma xoola gis nga bul delloo dara da lay napp instant yi bët la lay nappee nii bul delloo dara léegi kenn ku ci nekk na woote rapidement Euh, fu may tàmbalee woote bi mooy maa ngi woo waa Tivaouane Pël cat ba cat di woo waa Jamagan di woo aussi waa Casamance bu baax a baax di woo champion Casamance yi ku mel ni Eumeu Sène Badiana booy mu lomp dem naa ba Badiana dem naa ba dëkk Eumeu Sène Badiana. d'accord yow xam nga fa baax a baax dem naa fa bu baax waaw. waaw di sant euh, waa Ziguinchor waa Oussouye Cap Mulom surtout. man fekk Kounda laa dëkk Ziguinchor. Euh, di dellu ba Fogné. di waa Sindian Kabiline surtout kenn surtout sama dëkk sama cosaan. parce que foofu laa defee lu nekk. di sant di leen gërëm di leen woo si combat bi di woo waa Casamance. combat bi taxaw na kon nu ma la waxee woon tiituma si dara pare naa pour ngi ñëw supporter si ñi dem def ko niñ koy àggee defee rek daan ñibbi. ok di woo waa Kër Mbaye yëpp Kër Mbaye Fall gu may yeewoo. di woo tamit garage kalandoo bi Kamb Tojaas Ridis assurance xam di woo waa Caajaay Fatick Simla Diofior di woo ñëpp ñu ñëw jàpp si combat bi waa Kees Medina Fall Jaxaaw Ngendu marché mbëkkante ñëpp maa woo si combat bi. di sant Abdou Karim Sall. Hmm. le ministre. woo na ñëw jàppaat jàpp le tout nouveau maire. waaw sama xarit la. nuyu suñu Jowrin Izu kooku sama papa maa ngay nuyu bu baax di ko wax na gën a jàpp si affaire yi. Hmm. Modou. rapidement booy. maa ngay woo si combat bi di woo ñëpp Kër Mbaye Fall su ma juum Badou Ibra Mbacke ñoom ñëpp maa la man ku ay ñoom Siré boo yooyu noonu mafia mafia ala tendeer xam nga ma ñëpp su ma limee damay juum. alright ñu nekk sama ginnaaw kon mbokk bii mooy ah, troisième combat bi. mu nekk combat boo xamante ne nii booy toog leen ba ma woo leen toog leen ba ma woo leen man kenn du ma waaxu toog leen ba ma dama leen bëgg jox information boo xam daf leen di neex ñi fi toog yëpp daf leen di neex ndax ñun suñu ministre mooy ministre des sports ñu dem ba tuddee ko Youssou ñu dem ba tuddee ko ministre làmb Matar Ba ci ayam ci la ñu amee ñun arène boo xam ne moom la ñuy bëree suñu bopp ñëpp ne mooy ministre làmb waaye ministre lamb boobu dafa dem jëli coupe d'Afrique des nations Cameroun indi ko bu nekkoon ni tey lamb coupe d'Afrique des nations lamb ñaata yoon la fi dugg tournoi CEDEAO ci nguuram ñaata yoon la fi dugg Matar kon jàppaleen ni Sénégal Entertainment Group moo organisé tuddee ko GFM kon monsieur le ministre jàppal ni sa boobu biir lamb nga koy njëkk ñëw wane ndax yaay invité d'honneur bi kon loolu mooy information bi nga xam moom laa leen doon jox te xam naa ni njabootu lamb yëpp loolu dina leen neex sportif yëpp di dina leen neex xool ah ah Coupe d'Afrique bi waaw waaw dimbali ñu rek ngir yàlla booy ñëw nga indaaleel ñu Coupe d'Afrique bi ndax it ñun bokk nañ ci de football bee ko jël ah waaye attention de bu leen ma wax loo de <laughs> léegi nag combat bi neex na de soq bu ndaw ak appliqué non combat bu neex la jóg leen taxaw waaw booy lii la moo jël ma direct ku moom li yow. waaw indaale. pour lan la. non dañ ma koo jox rek. benn bi pour lan la bii. dañ ma koo jox rek bu ñëwee rek yëngalal rek yëngalal ba mu far rek waaw bagage yëpp njàmbur la jógee. dañ ko yónnee indi ko rek. far na. non lu mu gën a far gën a baax rek. waaw non baax bi la. non teel boobu di yëngal may yëngal bi. <laughs> am nga problème de yow. dara newu ci. <laughs> yor yaa koy wax rek. mooy non laa wax lan laa wax. Eh, leeral lu nga wax lu nga wax da leeral bu dee ñeneen dama ne nga sol te Paris mooy sama équipe. waaw loolu laa ma ne ko Paris laa sol te Paris mooy sama équipe. waaw baax <laughs> léegi euh, kan nga ci appliqué. appliqué ngi. appliqué sa ñaata combat laa reporté. man ah, en général man combat moo bëre ba pare man. yow ñibbi nga. waaw yow dem seeti leneen ci kanam laay xoolaat. ñaata combat nga bëre. trois combats ñaata victoire trois victoire. ñaata combat nga bëre. trois combats deux victoires benn défaite. bon est-ce que mbëru Pape Fara ñi ngi mu ngi nii Pape Fara ñi ngi bu groupe Futurs jour boobu ngay gis journaliste bu yor Senghor di tuus loolu man maa la ko parce que Pape Fara lu ne la def pour booy bi am combat. incha allah loolu dafa leer maa ngi profité sax di ko moom sama garant la. sama xarit la sama lépp la. Ah. ba nii may ñëw nii sax moo yëkkati otoom jox ma. ok kon kooku aw ma fayam. kon moo lay indi jour bi stade. chaque jour bu may dem entraînement bu may ñibbi seeg yëpp si otoom laa yëg. maa ngi koy sant bu baax waa Fara. lu tax soq bu ndaw waaw soq bu ndaw moom sama yaay moo ma ko tuddee. lu tax tur wi waaw soq sama mag la ñoo bokk ndey ak baay. yaa soq. waaw ñoo bokk ndey ak baay sama mag la mais man doxewuma loolu waxewuma ko quoi ndax moom mu ngi si yoonam maa ngi sama yoon dëgg la nag sama idole la man benn roykaay rek laa am roy mu beneen magu jàmbur samay mag rek laay roy si làmb mais mu ngi si yoonam maa ngi yoonam waaw buy ma dellool avance bi père dañuy sant yàlla bu baax di julli si yonent bi ma ñëw xaaral ma wax la xaaral affaire soq wóorul

dara boobu ba léegi ñu ngi delloo samay awar maa lay sant di la gërëm patron bisul la daan patron boo igri la nekk maa ko mu daan patron muy tas yaakaar waaw tas tas mooy patron ikiri ko préparé xam nga ma dese xam nag la ñooy ànd <laughs> amul ma si ragal amul ma si ragal tas sama xarit la moom ñooy ànd entraînement kii maa koy <laughs> encouragé moom sama waay la mais yow lu ma la mun a xamal mooy maanaam saal bu muy entraîné toog dina neex. saal bu muy entraîné saal Thomas parce que caare foofu sama secteur la fa defee lépp. déggoo ma moo bu muy entraîné bu fay dem mën naa kaa wax ban jour la fay ñëw. fay def si yow si yow ak El ndax dafa am loo xam ne. waaw déglu waaw fa laay nekk si wax bi dañ maa dagg ndax ma waroon jiital waa kër Cheikh na Cheikh Sadou ba pare ak waa kër maam Rawane Ngom di leen sant bu baax. fa laay entraîné bu baax sama coach. booy déglu ko waaye xoolal respecté ñu toog fii ñëpp waay sox sox déglu nga ragal nga ragal bu mbang nga xam naa sama ñetti combat yëpp laa de bi ma daan ak ma daan sax yëpp boo ko calculé motul 3 minutes yow dëggalal sa bopp rek Ah, jour laa ma jël sa bopp déggool man damay xeex damay bëre te léegi-léegi ñi dañ doon wax ay tegali tàngal bi bu la neexee père yow laa nga xaalis bëriwul man lu ma am ah xam nga man lijjanti ma xaalis yooyu ndax man du ma la woo naa la père ñaar lañ ma fay wala nii sama ñetti combat musuma xam ñaar lañ ma fay lu ma fa am yëpp père a big moom na teg lu mu am man ma. indi leen mooni bi déedéet. père na musique a tàng sama xaalis jëlal. jëlal kan moo koy jël. Matar Ndiaye Samba waa jëlal. waxaatal mu dégg. waaw waxaatal mu dégg waxaatal waxaatal. nga ne dama ne. waaw arbitre bu sifflé war na alxuraan bu ma reculer benn pas yi soq bu ndaw mi. waaw sama lu ma def sama reliquat yëpp jëlal. Matar Matar Matar déglu ma di fajar dinaa la yee ñu dem CNG bu arrière rek. maa aussi fu ñu la koy delloo xanaa ñun baaxuñu kii may ma avance bi nga naan la léegi man avance dama ciy jënd ñetti xar yóbbu ko suma waaj dafa fal nii. ma koy jënd ñetti xar yóbbu ko suma gàlle yow léegi loo may jox yow man déggoolu ma la man xam nga man père mu ngi nii du ma bàyyam fen waaw ñere koo bàyyi ma bëse bëre yëpp musuma taxaw ne ko père ñaar lañ ma fay du ma xam sax ñaar lañ may fay ndax man lijjanti ma lool lamb rek laa wax te suñu kër lamb rek lañ ma sas kii li ko wax dafa leer lu mu fa am ak man lu fa am man soxla sama xaalis man waaw mun nga jox non nañ ko teg man moom moom li am ak man li am moom moom su ma naa ko jël bu ma daanee mu jël ko waaw ma lax déggoo ma lax yow ma lax doo régler nga ni doo régler déggoo lu ma nga ni doo régler non lamb ji amul ay dëkkuwaay xam nga lan la dëkk déggoo ma la affaire affaire ak gëm sa Casamance mooy suñu dëkk si àll bu ferri boo ñemew loo xuus ci ok ok bu arbitre sifflé nga dégg benn action bu rafet loo xam ne nga dégg sa bopp dinaa la duma naa la daal waa bu fit maa la daa bëri gën a ñaan sa tapper bi ñëpp dañ ko seede waaw ko mu egg billaahi par respect père nekk goxu lamb xam nga ñun ñu juddoo si keppaaru Tidiane Faye màggee fa dañ naa dañoo nekk ay tout tànk bu ñu xëyee dañuy dem jàngi bu ñu wàccee ñibbi si écurie Lamsaar direct ak suñuy saak bu ñu ñëwee fa la ñuy nekk fëgal moo tax ginnaaw yàlla ma gën a bëgg laam. mais déglu ko yow tamit déglu ko quand même waaw ñëwee moom laa maa ko doon téyel ay yéreem ba mu bëre ba pare ñoom bu ñu paree ñun ñu nekk fa di contact ba ay gee bu ñu paree dem ñibbi bu ñu ñibbee damay dem damay sonn du ma mën dara damay dem bay wër a tëdd billaay wallaay seetaan la gis la yow wala alaaji maali ngeen naan mbër dafa war a am métier. day boob père xoolal ah. gis nga bu ma seetaanee loolu fekk père damay sonn damay xëccaat kaay père nekkaat di jàng xam nga père déglu ma ma ñëw jàng jàng jàng jàng jaayante ko jaayante ko billaahi bëgg a dimbali rek waajur yi xam nga waajur yi ñoo sonn hmm. ba décroché bac bi xam nga. ndeysaan université. Oh. félicitations félicitations félicitations. Oh. maa lay encouragé loolu loolu maa lay encouragé loolu noonu waaw ci leen di seetaan di gis naan mbër day am métier nangam nangam ma gën a góorgóorlu gis mbër yi ñii naan ay kalaasu ngaaka laa bàyyi li loolu doxul pour maanaam suñuy rakk yu ñëw après ñëw étude sport pour dañ gën a rayante oh. buñ bàyyi seen seen jàngi père xam nga oh. père gis nga ba ma raye dem université ñëw génnaat ins maa ngi sant yàlla bu baax boole kook sama lamb yàqalu ma dara bu ma jugee njàmbur njàmbur yi père 133 village sàkkal lu ko dalee ins bii ni sàkkal ba paal ins bii ni ku fay dugg te dëkkoo fa boo amul autorisation doo dugg si bi peer ma jugee benn baraak pos caara peer déggoo lu war na alxuraan lamb ji buñ ñëwee buñ paree si combat bi grand combat la ñuy tëggal Massamba Dikke Diop non miinu moo ko mais ku si ni ñoom Ousmane Sakkal ay Issa Diagne nga xam ne Ousmane Sakkal mooy ins bi maire Sakkal. ñoom ñëpp maa ngi leen woo pour ñu dugal ci combat seen loxo. déggante nañ ok c'est bon rapidement. maa ngi sant waa Casamance yëpp. Ah. ndax sama yaay waa Guinée Bissau la man Casamance laa dëkk. Hmm. te nit amoo lu dul fa nga dëkk. maa ngi sant waa Casamance yëpp. ñaalu Mosor Kajaakaay Cap Skirring Jemberen bu Buyuy Guinée Bissau ñëpp maa leen sant ñoom di faa ngeen di muyul ni xaawee ko kuujak injidi ay noomu mu ngi mini taxawal ban ji jokkoo mini taxawal jak soo dëggalee sa bopp naa la duma naa la daan. ok merci sant waa ginnaaw raay yëpp maa waa ginnaaw raay maa ngi sant waa ginnaaw raay di sant sama nijaay jibi joolaa boobu sama nijaay la ma micro non pare na man maa pare monsieur le maire Ablaye Diop dama koy woo dimbali ma rek waaw monsieur le maire Ablaye Diop maa ngi koy woo mu jàppale ma si bi moom sama nijaay ñoo si nekkoon sama nijaay di ko jàppale ba mu gañewaat maire bi maa ngi koy ñaan te yàlla tax mu ñëw jàppale ma jëndal ma billet yow soo dëggalee sa bopp laa mu jom une minute ok c'est bon une minute rek maa ngi woo waa Njàmbur ge bàyyiwuma kenn waa Poste Thiaroye Lamsaar waa benn baraag maa ngi woo ñëpp di Cheikh Koki maa ngi koy sant bu baax sama patron jàpp na si combat bu baax ñoom laay ñang waa kër Serigne ñang papa Serigne ñang entrant com maa ngi woo waa entrant com bi ñoom Tafa laay jaañ ñoom ñëpp maa ngi leen woo waa Bel Air waa foofu noonu bàyyiwuma kenn ñoom yaat Bakary waa Poste Thiaroye waa métti waaye foofu maa ngi leen woo waa ah, fas jom ñoom ñëpp maa ngi leen woo di bëggee sama booy bi ma àndal kàbbu waa waa xabaan waa ngàjj sama dëkk yaay ñoom dañuy jàpp ci combat bi leen woo ñoom comme ok merci affaire bi oh, ok ok ok il fait partie des des intellectuels de la lutte sénégalaise le pourquoi des intellectuels xeetu jàng boo jàng mataar baax na xeetu jàng boo jàng rek baal waa waa sport étude te li mu wax dafa am importance sama appel bi laay woote waat ni Matar Ba mooy invité d'honneur bëgg nañ mu indi Coupe d'Afrique bi. beneen bi mooy Sylla maire bu Yoff frère ci Abdoulaye Diouf Sarr mu ñëw jàpp ci biir yi ak Eli Mbaye Dogo ñoom ñu ñëw jàpp xale yi ci biir yi buñ ma ko jox danga ma ko joxee sama biir poste laa koy dugal dem leen ci Mao Cissé ngeen jënd billet yi séddale ko booy jox ko Matar mu seddale ko booy combat bi nag <laughs> booy bi tiitaru <laughs> gi nga booy bi man keroog dama la gis di la ciipatu xeetu ciipatu yoo xamante ne. nga ne damaa tiit wala waxoo loolu. da nga tiit Alboury. Lamine Samba dama laa bëgg a man benn yoon laa a tiit sama àddina. te damaa tëdd bay xalaat ma ma tiit. à part loolu mosuma tiit sama àddina. da nga tiit Alboury. loolu xam ko. yow gis nga keroog bi ñu dajee arène nationale li ma la def. jéewu ma la sax lijjanti parce que yow boo toogee ci internet bi naan xaw dem. ma gel yaa ngi may soog a wax nopp naa la mais Alboury yow tu te pour qui yow nañ liggéenti suñu problème ba pare après ñu dem Samba xew a ñàkk xew moo aay nga xew jéem naa la ko soxore ba tey mais billaay da xew non loolu mënoo ci dara xoola da xew billaay da xew moom muuma la mënul wax nañ ko jëw euh, lu ma wax xamul lu war a wax lan xamul su ma dajee kenn ma kaa wax. daa manqué ba yàq. du ma ko may dara. zo. mon ami et frère. zo ci loo ne. naka mu téye micro bi. téye micro bi. Ah, micro bi waaw waaw micro bi waaw. Ah. naka mu xoolal. ça va. xoolal daf lay jàppee ngaaka. xoolal nee na mu ma la. waaw waaw waaw moo ko jàppee woon. Alboury waxtaan na la bu bëri ba ma ñëw. wala boo ko jàppee defal ko bagage. bu muumaa rek. ah dañu muumuwul rek garaaw. nga ne. bu muumaa ci wax. waaw te léegi lu may sàq mi muumuwul rek loolu garaaw bi ma. muuma la jàppee maanaam moom ci wax la la bëgg a gagné. waa yow est-ce que loolu di nga ko nangu. te du yomb de. du yomb de. déedéet. waaw jour sax du yomb. du yomb loolu maa. dañuy jëw dañuy jëw ah. maanaam balaa ñu ah. maa ko organisé ci xel. yaa ko organisé ci xel. kii de. Hmm? kii de farkul. Isa tegle rek. Almadi lu neex. wuy ma gis mu tegle de ah. waaw. naa ko. dama tegle tubay. tegle ay yére tegle ay ay ay kiloot. te surtout Sadio Mané yooyu. yooyu yëpp la tegle. tegle ko yooyu tiitalu la de. yow bu ngay ñëw lu la indi. nga moom. ah. waaye yëkkatil micro bi ngañ moo la indi. xam nga place de l'indépendance. place de l'indépendance. Ah. dama koy dégg rek. xamoo xam nga almadi. almadi déedéet ngañ won na ma. yaa ngi almadi fi ah yaa ngi almadi fii. Ah. waaw. ngi doog a ñëw fii. yaa ngi TFM TFM biir TFM. maanaam fi nga doon dégg naan xamuloo ko mi ngi nii. maa ngi gëstu gauche yaa ngi gestu <laughs> gauche droite di ko xool. moom it xool du nante xamul fenn. moom day nandi nandi lu rëy. Alboury xale bi dafa ñëw fàq yoonu boppam ngeen baal ma ci début guy gi rek la may jox parce que guy gi laa yab. Ah, guy gi début bi mu ñëwee. waa Sangaye ñu ngi koy direct waxal ñoom waa. ñu ngi koy gis en direct nii. waa ak nan. waa Sangaye. waa Sangaye ñu ngi koy gis en direct. waa Njëgëñaaw. wax leen waxal ñoom. Ah, nii nii bu ma wax ñoom ah, ok waaw waaw. waxal ñoom waxal. waaw waaw ñu may gis. defal nii. Sangaye. Sangaye waaw. Sangaye. Njëgëñaaw ah, Njëgëñaaw fa xam turu kan. turu Njëgëñaaw. ak fa xam tur lim leen. ah xanaa mairie bu jël. affaire bi fan yii nu mu tudd. tening. tening tening tening defal ni tening ak kan. ak suñu chef de village bi Sakk Jam. Sakk na xamu. imam bi Ablaye waaw. sawa ne maa ngi nii zone technique numéro 2 ñëw mu TFM Almadi Almadi ah, TFM TFM Almadi ne am mbër mu bari wax Alburi waaw am mbër bu bari wax ah. te bari tiitar te ñeex baase bu fanaan la daa forox rek <laughs> loolu ay xaar ay ñoo koy mujj di ci cop di ci jël seen temps di ci rey kii comme waaw waaw. maa ngi lay ñaan ngi lay ñaan def ko ndànk. waaw. bëgg. waaw nuyoo waaw maa nuyoo ndax man. waaw. su ma nuyoo moom dootul. dootul nuyoo léegi neen dafa bëgg nga nuyoo balaa ngay nuyoo balaa muy nuyoo parce que moom yow moom su nuyoo yow doo nuyoo. dinaa moom mu jiite taawoon baal mu njëkk nuyoo. acca Alfuri nuyoo nee na li si des yëpp jëlal. bisimilah. auzu billah inna waliyallah bisimilah rahim maa ngi sant yàlla. yàlla mi nga xam ne moo ñu kala jaaneel kaw ci kaw. ci kaw li ci kaw daanu suñu kaw. kala ñun suuf ci suuf ba ànd li ci suuf dugg ci biir suuf. di sant yàlla tamit mi nga xam ne moo ñu mosal kub. ndax nee la. fi àddina yàlla moo ko moom te ku dee moo la rey te mi ci ruqam na pat bu ko neexoon Sénégal du jël coupe ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ci coupe bi mos nañ ko jubilé nañu daw wër ndakaaru ba doyal di ko sant bu baax a baax a baax a baax di sant tamit président Macky Sall. Alboury mën nga ma may benn affaire dafa am lu ma koy laaj rek fan yii Sénégal Sénégal lu mu jël bu ñëpp di génn naan nii nii nii yëkkatil. dégg naa coupe la de. coupe coupe lan la. coupe football. ku ko jël. ah. de dama lay ku ko jël. joueur yi gendarme bu Dakar la ñu naan jaraaf la. joueur yi ñoo ko jël. kan kan la. joueur yi ñaari joueur rek laa xam. kan ak kan. Sadio Mané fan lay football. ak lay football Sadio Mané. Ah. Sadio fan lay football. ah ci pegg kaa waaw ma ne fan lay football ban club lay football fii Jaraaf Jeanne d'Arc wala wala Stade de Mbour waxal Stade de Mbour. Stade de Mbour. ah Sadio Mané fan lay football. Stade de Mbour. Stade de kii gañe na ko Albouri demal. Lamine Samba bëgguma nga may dog. waaw moo taxoon ma bëgg mu nuyoo ba pare. waaw non dama ko doon laaj rek. ndax nee naa la la ca maam soto koy jël. dëgg sama maam. Birama Ndéla Ngane Ndiaye te la ca maam. soto koy jël koy jël ba yamal xiyaam. te ku sa maam mënoon maamam. doom ja yaa mën. waaw. man la Alboury Biram Penda Njéeme Biram cukkuli cukkuli njiglaan njiglaan sare sare njaajaan njaay surtout Birama Ndeela Ngaan Njaay bi oh man nga xam ne sama maam bu ko kenn musaana tooñ day bàyyi bañ mat fukk mu boole duma góor musu koo yab tabaarkàlla euh, baa xam nga ne ku musaa yàqa waxal ak moom man sama yoon newu defaraat loolu moom waaw sama maam laa la wax ku musaan ku musaan a yàq ay waxam di nga ko defaraat di nga defaraat ñëwal góor musu koo yab dëgg la di ko di sant ñëpp di rafetlu toogaay bi di nuyu sama sama adversaire Zo. ah xam nga la séeréer di wax fañ na ngoo saa rooroo gi dem na xol. déedéet. fañu fañ fañ fañ awa ca ca. foofu la sama maam yi xàppati ko. nga ne. foofu la sama maam yi xàppati ko. nga ne fan la sama maam yi xàppati ko. fañ na ngoo saa rooroo gi dem na xol. Ah. fañin fañ te wa ca nee na moom maamam bu ko benn góor mu musaana tooñ day bàyyi ba ñu def fukk mu boole leen defaral bagage. kii daa bàyyi xeetu maamam. <laughs> xeetu maamam fan la xeetu xam nga lan la. déedéet. moom yëkkatil micro bi xeetu maamam xam nga lan la. déedéet na ñëw topp comme genre émission yi. waaw ñu bakkoo. waaw bu tegal ñi ñu bakku ñu kontaan may ko. maanaam comme sama genre yii. waaw parce que lii du waree fam ñun ñi nga xam ne duñu xeet boobu muy suñu wari ñun maanaam comme ñi nga xam ne dañoo bokk ci làmb. waaw xaalis dugalu ñu ci làmb waaw xaalis moo ko duggal ci làmb bu may dugg ci làmb xaw ma woon waaw may dégg ndax li muy wax ah amul bopp li muy wax am na solo de amul bopp amul genn Alboury li muy wax am na solo de nit ko xàmmewul bouton ak mouton kenn bu ko déglu dégg nga ne kii xàmmewul bouton ak mouton ak mouton déglu lan mooy bouton waaw lan mooy bouton bouton waxal mooy nekk ci dal lan mooy bouton. mooy nekk ci dal. très bien lan mooy bouton. bouton mooy nekk ci dal. wax ko ne ko bouton mooy nekk ci dal. mooy nekk ci dal. dafa naan lan mooy mouton. mouton waxal mooy kawas. kawas. mouton waxal. kawas. nga naan xàmmeewu ko. xàmmeewu ko ah ko ay yow wax ko ne ko xàmmeewu ma ko wax ko. waxal. nee naa la. waaye yow da ngaa feebar xanaa. gaar ba gaar bëgg nga déglu ma. gaar ba gaar saxaar koy daw. baa ndaw lu sawar tabar sama maam daf maa yar. waaw waaw def ma ndaw lu sawar tabar ne ma jugal nga dem nafar. ga tax du doon tagar de. déedéet. te seet bu beex du ragal xaxar de. déedéet. damaa bëgg nga régler te solution te xam ne dof-dof lu boos boos lu moo ko gën dama bëgg nga nekk nit li ñu naan dof nday doful ndey jo moo dof. dof doolu dof doolu mënul ànd ak naanate. déedéet du manque ci biir naanate. waaw waaw waaw. <laughs> barke Rasulullaay. kon léegi xanaa wayete bu moo fi. waaw wayete. waaw damaa wayete. trouvé. waaw waaw boole ko ñàkk jëriñ. waaw dof. trouvé ngay wax du trouvé. mooy trouvé la man ngi soo dof du ma xalaat moom mu laajoon combien de combat xaw la xaw ko man bu ma daanee ba pare faxas naa ko ci ginnaaw nekk sama kanam. waaw waaw. comprendre damaa bëgg la ñun ñoo ko dàq daan fuuf. victoire bu doon suukar jabet naa bu yàgg amee naa ko nu loolu laa am naka ci xam ko. waaw bu doon jabet. waaw doo egg <laughs> waaw waaw. Yacob combat kan ak kan nga ah, nga laaj ngañ. ngañ ñaata combat la bëre. neuf combat ñaata victoire. zootechnique zootechnique zootechnique neuf combat neuf victoire. Albouri. man maa ngi sama maa ngi def naa sept combats sept victoire. amoo defe xaw ma loolu. amoo défaite. xaw ma ah maa ngi réparé dof yi. xam nga kii fi ngay wax du la fa tontu. kii dañ koo war a wax ak moom. kii mooy nandite pire nag. bàyyi ma waaye Albouri xoolal waxuma la caaxaan de. li ma gën a métti mooy sama signature bi man dama bëgg suñuy signé man ndax man ndax man doxuma ci dara lu kalma man damaa bëgg biir bi man instant bi gisuma ay sabar gisuma dara xamul te ki may waxal fi may wax du ma fa tontu man dama problème bi aw ma lu ma neex xoolal luy problème bi man maa la ko wax kii njiitu réew mi fii tudduma tur benn njiitu réew mi fi nekkoon la bu clignotee gauche droite lay jàpp li ngay li ngay wax moo ko gën a xam fukki junni yoon ak juróom non non Alboury du caaxaan de dama ne la man dama bëgg su may wax di ma déglu ndax man élément Lamine Samba eh man la xale rimbili rimbili. pataas bin bin xale rimbili rimbili. pataas. pataas bin bin bul la pataas de. pataas bin bin. pataal pax pax. pataal pax pax. xale bi dégg temps te musta wàcc temps. oh Lamine Samba yow nga war ngaa xam ne tigri temps rubina temps taj temps loolu yëpp ay xeetu temps la. dëgg la non damaa bëggoon ñu indi fi ay sabar. non xoolal jéew ba Sénégal Entertainment Sénégal bu làmb jaa. waaw ñu may ma ndax ñu làmb mooy suñu cosaan. la te dama bëgg indi mbubu buur. waaw indi tuusu buur. waaw damaa bëgg waa CNG ñu may ma ay bu dee ma indi cool mbëng-mbëng tungune ndeer wala gorogu talmbat ak gorog mu babas. noonu la demee nag. Euh, kii bi dañ noo ko ci suuf. waaw euh, tungune bi. waaw bëgg ñu may ma ko. ma indi sama tuus. may nañ la ko parce que cinq combats moo am. ndax buur day tuus. dëgg la yaa ngi dégg. dëgg la samay dag topp sama ginnaaw. Ah. samay géwél sama ginnaaw. Ah. Ah. nga leen ma jël démb. boole kook tey. waaw ñu jël ko consommé local. ok wuy ma nee na buur la de. buur waaw yëkkatil micro buur waa buur waaw. xanaa xamoo kii combat bu mujj bëre. waaw. Sall Ndengler da ko war comme reliquat bi ñu ko jox. waaw war a dig di ko dagal di mu koy fay. lu tax. Sall Ndengler moo ko jaay. nu mu ko jaayee. ah dafa feeñal li nekk ci moom. voilà dafa. dafa feeñal li nekk ci moom. Ah. te loolu moo ko may comme maanaam mu takk rajo. waaw ba am li mu am ci defet gis nga ndend daanu mel ni yaa daan. ndend nga indi téeméeri ndend ak beneen ndend boo xam ne lu waa làmb moo ko indi. waaw la même chose boo buggee fecc boo tolloo ci koñ bële boo déggee ndend bi. yow koy sabarul rek. waaw <laughs> sabarul rek nit ñi di ko bu dee da ngaa war a fecc voilà. yow xam nga ne man namm nga fecc man kër géwél laa dëkk man saa yu ma xëyee damay dégg ran damay dégg pin damay dégg mbax damay dégg mar na bu ma xëyee almuri ma yokkal la benn affaire est-ce que xamu ne kii fa ñuy nekkee bañ a nante sax fekke wu ko kii nee naa la nante la de dof nday doful nday ja moo dof déedéet man dofuma de dama réew dof dof la fi ne kenn doful moo desu leer waaw ndax bu doon séeréer la moo taxawoon ni may wax ngay jottali waaw ah dina xam lu may wax c'est normal c'est logique yéen foofu la ñuy tàggoo ku mën. ku mën ci lan. ku mën ci làmb. nee naa la. waaw kii. xam nga lan moo ko indi ci làmb. waaw bëccëg bi moo leer. waaw comme maanaam su may dem rek mu am ay àndandoor loolu moo ko dugal ci làmb. waaw waaw ku mën. kii du mu moroomam. yaa ko mën. kii maa man ci ci xaw ma ci ci ci ci ci muy mu koy neex mu koy naqari. léegi damay xool ndax yéen séq ngeen jàmm nuyoonte leen ma xool. non séquñ jàmm nag. boo bëggee dégg dëgg. lu tax séqu leen jàmm. bëre dóor nga wax. waaw. am ngeen loolu jàmm du nekk ko parce que. nel benn. benn. kii. waaw yàlla daa dogal ne comme nii. waaw indi comme yàlla daa dogal nii. waaw comme bu doon tey moomu man. waaw du indi bëre de day ñëw ñi ko Alboury mu ngi koy rokos. mu koy rokos ba mu toggal boppam. waaw ba mu ba mu man ma toggal sama bopp. waaw moom loolu maanaam xire la ko def. waaw daa jàngewuñ noonu hmm. comprendre nga hmm. ñun c'est logique kii hmm. dama koy wala dama koy ñëw di ko jàpp ko nu ma ko neexee ma lem ko nu ma ko buggee mais nuyul te leen ma seen ndax seex ngeen jàmm dama ne ja mais leen jàmm seexuñ jàmm lu tax ah guerre lañ jëm de jekku sa morom rey en tout cas ñun ñu pare lépp ñun waaw waaw pare lépp waaw bëre maa ko dàq yoon lépp lu muy jaay man dama koy maye loolu la yàlla dogal yaa ngi dégg en tout cas daal loo pare doyul ñun fépp la ñuy pare. dégg naa la moom eh, la Samba kii bis bu yooroo bu ma ko rëkkee. waaw yaxu cosaan bi mooy dam la ilaha illallah. ah. nee naa la bis lu yooru de nee naa la waaw. bu ma duggee comme kalaafu ñoom guy gi. waaw puul yooyu. waaw puul comme puul puul da aj loxo. Hmm. comme di jéem a mu ne damay def ni ay taxas ak. waaw ay këcëng lu ci neex kenn amu ci defet te bés ba le 20 il ñu lëng kenn yóbbu kan la ñuy lëng. yàlla nañ ko lëng. kan ku ñuy lëng bés ba. <laughs> yéen a a ci fanaan. yàlla ko lëng. kan ngay woo fogale séeréer. fogale séeréer mais xoyaa fogale séeréer tout le bon. waaw. xaraf a séeréer rek mais xoyang na ko mbaane. Hmm. kii fadeeraam ndax. matuma matuma waaw. mai hoya tout le monde njega ñaaw sandwok sangayal mo rimema jag ay fisel caajaay yay nana sanjara ñiñing nda dafa jofiyor jofiyor fimla fimla lul Fatick. Lul Sessène waaw ay Lul Sessène ay fatik ay Ndiaye niin tout le monde. Niakhar ah. mais xoya ay ñiñing ay Mbéféc. Hmm. ah hmm. Ndaamin hmm. Koocaanin. mun naa la déy benn affaire bu ndaw Ndiaye mun naa la déy benn affaire Mbalaxaateen. xaaral dama lay déy xoya Xabaan xoya Mbaafay. dama lay déy tout le monde xoya den. dama ah, waaw dama lay am lu ma lay wax. bismillah mooy sa gel boobu la waxoon la nopp ci internet bi. waaw waaw woo ko xam nga turam. Roqaye Ndiaye. Roqaye Ndiaye maa ngi lay woo maa ngi lay woo ko combat bi. mi ma waxoon nag maa nopp. waaw dégg maa nopp waaw ci internet. maa jigéen lii la woon dànk. Eh, xam na jigéen Alboury la tudd. Roqaye Ndiaye. ne ko xoolal Roqaye ma ci internet bi. woo naa la naa la. kii verse waa kañ. waaw Roqaye bu mu waxoon dama nopp fële. stade waaw ca Tëngéej waaw Tëngéej waaw. waaw fu bare xeer yi. waaw maa ngi lay woo. waaw ci bi waaw. waaw léegi ñeme nga jigéen. waaw ci individuel nii. waaw si individuel maanaam yéen ñaar kese. déedéet comme moom mu nekku fi. waaw comme nekku fi. ñeme naa. <laughs> maanaam maanaam comme comme Roqay Ndiaye nekku fi. nii waaw mën nga koo wax lu la neex. waaw mais léegi su Roqay Ndiaye ñëwee nag. comme bi moo moo moo dul bëgg comme fu ma koy jaarloo. waaw du fu jaar. maanaam yow ni ngay def pour mu nopp la. waaw boobu problème la. waaw xaaral ma woo Roqe Ndiaye. yow daal. xam nga jigéen. dama big amul ak encarnaar. bëgg nga jigéen xaaral xaaral xaaral. yàlla xam na ne big amul encarnaar bëgg nan lay bindee. xaaral xaaral alors Roqe ça va na maa ngi si wuyul zo waxal waxal du maa ngi lay woo sama combat bi. maa ngi lay woo sama combat bi. wax ko bul ñëw fii léegi. bul ñëw fii léegi léegi. léegi yow nekkoon nañ dandante rek. waaw nañ waaw à distance. à distance ku la neex. à corona <laughs> waaw maa ngi woo waa Kër Mbaye Fall yëpp waa Abdou Karim maa ngi koy woo ci combat bi. waaw waaw maa ngi woo Cheikh Diaw. Euh, ay maa ngi woo kii Modou Gueye Badji ay ñoom ki Ngoni di jaale sama waa Sangaye mhm. euh, baa ngo aareer mu fu ñàkk fan yi mhm. yal na ko yàlla aare arjana ngóor njëgi ñaaw dafa war moo gaañu maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla xaare arjana njëkkandana àdduna ni njëkkandana réefa ok waaw maa ngi ñu tëj woo waa Kër Mbaye Fall yëpp yëpp sama supporter yi waaw am leen mm. bu bu ñu yéexee naan daa du stade ok maa ngi woo kii doo woo sa turandoo sa waa waa Ibrahima Ndiaye maa ngi woo Ibrahima Ndiaye maa ngi woo waa Malaga mm. ah, Daouda moo bind fii Malaga Malaga waa Espagne Jordana completa ah Malaga Espagne. ah loolu la wax de. zone technique waay man kër Soro waay. Ah, soosal ci tànk abur yi. solo. waaw waaw Espagne laa solo. taay maa ngi nani nani ñu ngi may dugal ci ñu ngi may luqal ay ay. Zou faa naa la solo. kii Ndiaga Niang. kii eggul Ndiaga Niang. Ah, Karim Fall moom a sant borom KF collection. Eh, maa ngi dégg mu ne KF collection maa ngi woo a Ndiaye. waaw waaw Ibrahima Ndiaye oto. oto waaw kooku moom dugaloon oto boo xam ne. waaw damay gëstu oto bi di seddee côté bu ne. di seddee waaw. oto buy sedd amul de. Ah, ah ah kay keroog laa déedéet oto buy sedd am lan lañ ci def ba mu sedd. ah oto bi de man damaa gisul foofu ah et galas ndaa oto bi daal côté bu ne lay jógee. non soo defal ndànk soo oto buy. fas la xam fas. non soo soo oto buy sedd amul soo waxal luñ la xamal. kii daa dawal fas oto bi nan la seddee. incha allah kii daa dawal fas dawal fas. kii moom moo jeex. kii dafa jeex. dafa mais soo defal ndànk soo fan nga gisee yow oto bu am euh, galas bu sedd. ah oto boobu de keroog moom gis naa ko. muy sedd. muy sedd du gisoo muy jaaree fu ne. yow fan xanaa dañ ci def glace. est-ce que boromam daal ah xaw naa moo ko ci def de. glace la ci def. i waaw du nuyu sama waa ji wuli. di ah, wuli ndeysaan sa xarit la. gaan sa xarit la ak Maawo. Maawo Cissé. waaw ndeysaan. waaw. mais yow buñ la waxee buñ la waxe la waxee ne la Lamine Samba. nga ne ah dama koy dégg ci télé bi rek. maa lay doog gis yaa ngi may soog bi nga ma gisee loo loo gis joo nañu waxante dégg rek. waaw c'est bon de. ah <laughs> xam nga. Malick daa gàtt maa ko gën a rafet. Ah, de maay Lamine Samba. yaay daa gàtt. ah maa moom ku maa wuli maa ko gën a jantal ah. wuli waaw eh voilà lekk nga sa plan national bi. lan burger. ah hamburger waaw. lekk yo. taa moom boo ko lekkee. gisoo ma leeree damaa ñëw <laughs> loolu rek laay reere. waaye Sow foo lekkee hamburger. Matar ma la indil na ma 10. 10. 10 waaw. ngañ sax kii mu indil mu 3. nga lekk yëpp. waaw. damay lekk lépp xam nga bu mu lekkee nii sax su ci guddi bi nii su ma dama koy xaw a gént mu jóg mu dóoraat ci. mais hamburger neex na. eh daa lan la def la hamburger lan moo nekk ci biir. comme ça comme fii ci ginnaaw ni waaw daa am ay tupp tupp donc comme am ay daa am. tupp tupp. daa am ay tupp tupp fii. comme ça rek ah. comme boo ko moccee. comme xaal boo ko moccee waaw. am na doom yooyu. waaw noonu lay doon nag ñu tax ko nii ci ginnaaw bi. waaw boo ko ubbee ci biir. loolu comme po po la la. waaw ndax fataay laa ko tegoon. waaw ndax po la la ndax daa am benn kii. waaw xam nga ndépp naag. déedéet. comme nag yi buñ dayee ci àll bi. waaw. comme ça yu mel noonu lu ñuul la ñuy roof noonu. ci biir waaw ñu ne yàpp buñ kii la. ñu ne yàpp buñu. xaw ma dañ ko wal xaw ma nuñ ko dam noonu de. <laughs> mais kon burger neex na. Eh, dama ko taay moom laa xeewal. ah waaw ñaata lay jar. gars yi waxaguñ ma ñaata lay jar nag. xaaral ma jox la ñett téeméer yii boo demee nga jënd si benn burger. am lii. yow amoo fàntu yow. de xaaral. dama lay dama lay dama lay may dama lay may deux mille cent. jox ma jënd cere. ma jox la. cere mais boo d'accordee leen man ma jox ko ñaar téeméer yi. déedéet ko jox. waa léegi yow lii loo koy jëndee. hamburger. kon man ma jox ko ñaari junni. ko jox dara. Oh, waaw. damaa bëgg nga may dégg fi may waxee. waaw d'accord géwél dañoo far. ku am ñaari 5000 fii ku am ñaar Matar da nga am ñaari 5000. jox ma jënd cere. ma defal ndànk waaw rek defal ndànk ah. naa ko jox waaw yow nga jox non damaa bëgg mu leer. xamul xaalis ko jox. doo ko jox indi. ku yor 5000 ku yor ñaari 5000. ku yor ñaari 5000. indi xaaral rek man li soo indi. indi. merci. loo jëndee lii. hamburger. loo jëndee lii. hamburger. lu mu am. daa am benn saaru affaire bu def nii ron ci digg bi. waaw. waaw après boo ko ubbee. boo ko ubbee. Ah. am na beneen omelette ci biir. waaw te muy niin may nees tuuti. waaw waaw. am na lu mel ni ndéef. voilà ndéef naak. ndéef naak mooy lan. comme ça neef ren nag rek boo comme nu mu ko defee noonu ci àll bi nga fekk ko mu wow noon waaw noonu lay def ci biir. noonu lay def ci biir. waaw léegi jënd ci fukk. waaw yow looy jënd looy ndekkee. chaque jour Cheikh Baye Ndiaye boroom solution ambassadeur of of peace and love. waaw moo ma xamal hamburger. waaw. bu dee bëgg ngaa dégg-dégg chaque jour dañ ma ciy livreel ñaar kon man kon man miin na hamburger. waaw xam naa la muy jar waaw. te xam naa la muy jar xam naa la ca biir. waaw ndax la ka kaka ma la mu saf. kaka ma ca ko mais léegi xam na ko. waaw kii xamu ay war naa am xaw ma. loolu la xam loolu la xam. mais loolu loolu man sama xel maa ngi tey bu dina tax man man man dootuma bëggati hamburger ko xamul hamburger dootoo ko lekk. xam nga kii dafa màgg. sa kaa ma wax la man man cere laa xam. waaw cere waaw. chaque jour damay lekk ñaari hamburger. ñun ñu juddoo ci cere parce que démb leen eh, eh. ma waaw chaque jour damay lekk ñaari hamburger waaw waaw boole si cere def sama cere six cent. six cent. fukki dërëm. waaw suukar juróom. moom laay tëjee. moom ngay tëjee. voilà bu ma paree jëndaat ñaari caagir yu cent cinquante. waaw lu benn bi safaa la benn bi wiitir. waaw moom laay naan. waaw tëdd ak sama ngor. waaw lii boo ma ko joxee cere laa siy jëndee. six cent ndax man maîtrise. damaa bëgg nga xam man damaa maîtriser cere. waaw d'accord cere six cent cere lekkee naa ko nu ne. waaw ndax cere dafa bëri te waaw ñu bëree ngi lekk cere taxamuñu. xamuñu ko lan moo nekk ci cere. cere dafa am cere tëcc tëccal. waaw am cere siim. waaw am cere kobos waaw ah man nee naa la reer damay reer ba salaatu xayrun mi ne nom yow mi sama wet gi fii dafa gudd looy reere mën naa lekk gileem ak doomam loolu feeñul ci moom de wuy ma waaw barki sëy man sama doole ci biir la ne kii bu ma ko ne nuus dama koy ñuus ñibbi noos mbokk Sénégal dafa woote damay woote mbokki amateur yi bàyyi nga noo defal ndànk mbokki Sénégal mbokki amateurs yi événement baa ngi noonu mbokki Sénégal jàpp leen ni Sénégal Entertainment Group bu wootee nii rek lay mën a demee dana saf dana am comédie mais bu leen jàppee ñaar ñi mukk ci li ñuy wax dara lañ ci gëmul bu ñu taxawee ñu xeex te ñoom ñu bëri may naa la une minute rapidement. waaw di woo waa Grand Midi. Mhm. di woo Cheikh Baye Ndiaye. Mhm. di sant sama sama sama papa Cheikh. Euh, Cheikh Bamba général Satiga Caajaay hmm. maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko woo ci bis bi di woo tamit waa caabi ji waa caabi ji Lamine Samba waa caabi ji dañ maa may dañ maa may terrain ne ma terrain baa ngi noonu aw ma lu ma ci def nag aw ma lu ma ko tabaxee mais bu soobee yàlla dinaa si dinaa ko def toolu dànq hmm. ah ba baa may am ciment di woo waa Grand Médine yëpp ah di woo waa Kër Massar waa Parcelles di woo Youssoufa Niang na ko combat bi sa combat la mu ñëw jàpp si di woo Tidiane Diallo di woo ñëpp di woo Mouhamed Kanté borom 2K TV di woo ñëpp di woo ñëpp ku gis tur lii ba xam ne mooy sa woote di woo waa Grand Médine waa mafia bi waa Kër Massar Parcelles Patte d'Oie di woo suñu maire Maymouna Dieye di woo Ahmed Thiam di woo Tidiane Diallo di woo Aliou Dia Aliou Dia mbëlëxe maire mbëlëxe bi ñu ngi koy woo bu baax a baax ci combat bi naa la 5000 ko fàtte zo léegi jox naa la junni de bu ko fàtte. maa ngi lay gërëm di la sant. waaw bu ko fàtte de yow soq nga yoon bi yow. waaw bu ko fàtte de. nit nga ko. waaw bu ko bul fàtte junni yi ma la jox de. oh yow de yow bu ma daanee ba pare. kii bu ma daanee ba pare damay ñëw si. bët set bët setaat ma seet la ñëw yendul la. jox ma junni. da nga koy delloo wala. non dama lay rukuy. mbokk yi kon mu ngi noonu diggante Kara Nianing la ak Boy Xule Saamu Kaani ak soldat doomi Kër Mbay Fall ak risqué. soq bu ndaw ak appliqué jeu technique numéro de ak Albouri mooy combat spécial bi l'écran lañ ci àndal ak Free Money dimanche lay am 20 février fële ci arène nationale drapeau GFM la Sénégal Entertainment Group moo ko teg guy gi ak Reug Reug mooy grand combat bi waaye combat yi kenn dàqu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Sénégal Entertainment